imaamina muhammadin wa ala wa ashaabihi wa xayri xadimihi wa man tabia hudahum bi ihsaanin ila yawmi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci nuyoob lislaam boobu di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dellusiwaat nañ ak yéen ci jataay yi nga xam ne ñi ngi koy def di ci ànd ak waa daayira muxaddamatul xidma ci bis bu nekk ci waxtu wi ci biir koor gi jataay yooyu nag ñu di ko amal di ci jël ay bind yu am solo di ci traité itam ay thèmes yoo xam ne thèmes yu am solo la yu dëppoo ak jamono tey jii nag ñu war a traité thème boo xam ne jamono laaj na ko lool muy arrafa bil xayawaan matlabun shar'i muy yërëm bàyyi ma lu diine laaj la maanaam yërmaande ji ñu war a am ci bàyyi ma yi daal matlabun yi la maanaam lu diine laaj la lu diine digle la ki ñu war a àndal ci thème bi nag di sëriñ Muhammadul Faadal Buso di ko xam ne miin nañ ko ci barab bi def na fi ay waxtaan ba tàyyi tem bii nag doon thème boo xam ne tem bu am solo la ni ma ko waxee léegi ndax liñ fi jàngat lépp rekk day aju ci loo xam ne day yéwénal suñ dund gi di yéwénal suñ dund gële ñu jëm ndax bàyyi ma ci boppam dafa doon mbindeef moo xam ne suñ boroom subhaanahu wa taala moo leen binde bindee nit ñi ñu am ay yitte yuñ fi dox ci ñoom it ni nga xam ne noonu la fi nit ñi dox see ay yitte fii ci àdduna te comme ñun suñ dund gi ab jaaruwaay la boo xam ne dañ fi jaar ngir def loo xam ne day yéwénal suñ dund àllaaxira gee te dundug àllaaxira la koy yéwénal mooy la ca gën a kawe mooy dugg ajjana xam nañ ne ñun ñépp lañuy bëgg rekk mooy bu yomal xiyaamee suñ boroom dugal ñu àjjana te ci sababu bàyyi ma yii suñ borom subhaanahu wa dugal na ci nit àjjana ci teral gum leen teral ak jox gum leen jox seen xàq waaye itam dugal na ci nit safaan ba ci mbugal gum leen mbugal walla tëj gum leen tëj kon loolu day wone ne thème bi thème bu am solo la ki ñu ko war a defal nag ni ma ko waxee léegi mooy Cheikh Mouhamadul Fadal Bousso di koo xam ne xam nañ ko itam ci barab bi doy na sëkk ci xamle ko mooy ki nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mourtada yàlla nañ ko yàlla fayal dénk école am bee nga xam ne moo nekk ca Thiès muy mudirul Azhar bu école suñ Mourtada bële ca Thiès kon loolu rek doy na sëkk ci xamle ko ba tey itam bokk na ci ñi nga xam ne ñooy taxawe bayaan yi fii ci jumaay Tuuba di yëngu ci bépp yëngu boo xam ne itam yëngub diine la ak tasaare njàngalem Seexul Xadiim radiyallahu taala kon ngir ñu bañ a gujjal dañ koy jox mu dugg ci biir waxtaan wi kon Cheikh Mouhamadul Fadal bismillah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 sayyidina wa mawlaana muhammadin il amiin wa ala aalihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dokkeel ci weeru koor bi di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala mu nangul ñu mbooleem jaamu giñ ciy def di sant waa daairatu muqaddamatul xidma di rafetlu seen liggéey di ñaan yàlla mu yokk leen may leen ngërëmal sëriñ bi te defal ñu ko ñun ñépp ni ko sëriñ bi waxee rek tomb bi ñu joxoon tey ngir ñu mën cee waxtaan ubbee ci mooy arrafatu bil xayawaani matlabun sar'i maanaam ndekete yërëm rab yërëm rab yi lu lislaam digle la ginnaaw lislaam moo ko digle nag war nañoo xam suñ bëggee jëfandikoo ndigal loolee nu ñuy def loolu rekk mooy waxtaan wi ci njëlbeen gi nag dañuy xam le ne sunu borom ci laayee fanweer ak juróom-ñett ci suuratul An'aam ma fay wax ne wa ma fil dabbatin ardi wala tairin yatiru bi janaxayhi illa umamun amsaalukum nee lépp luy daagu ci kaw suuf wala lu am ay laaf di naaw ci asamaan si aw xeet la ni ngeen nekke aw xeet yéen doomu aadama yi kon ndekete wet gi ñu bëgg a joyal waxtaan wi tey jii mi ngi jëm ci suñ mbokki mbindeef lañ cay njëkk a dégg itam mooy ñun dong nag ñun nit nekkuñ ci kaw suuf dëgg la borom bi tabaraka wa taala bi ñu bindee dañoo wàcce ci kaw suuf waaye bind yeneen bindeef itam nag ñu bokk kaw suuf si muy yi daagu ci suuf ak yi naaw ci kaw mu ne nag aw xeet ngeen yéen doomu aadama yoo yële itam di ay xeet kon doomu aadama su xamee ne nim nekk aw xeet te xëntewoo sàmm xeetam bi ni la amee nag weneen xeet wu borom bi bind ci wet gi ñooñe itam nag am àq ci sàmm seenu xeet di sàkku ci doomu aadama itam mu sàmmal leen seen xeet woowee muy rab yi rab yi nag dafa mel ne buñ ko waxee ñu bari dañuy yaakaar ne mooy yi dox ci kaw suuf rekk dëgg la ci lañ waaye am na rab yoo xamante ni ci jéeri ci lañuy dox ci lañuy dund am rab yoo xam ne ci géej gi lañuy dund am rab yoo xamante ni ci jéeri ji lañuy dund waaye nag ci àll ba lañuy dund am rab yu miin doomu aadama am rab yoo xamante ni miinuñ doomu aadama waaye lu la ci waaye man di wax nag ñu xam ne borom bi la bind yow doomu aadama nag moo bind rab yooyu taf nuur na ne fonk na leen ndax boo demee ci alquranul karim tudd na fa ay rab daf leen a tudd ca seenu tur sax nag bañ bokkee ci aw xeet daf leen a beddi tudd leen te ku yàlla tudd nag bokkut ak kam tuddut tudd na nag ci biir alquran tudd li ñuy wax barkeel la ci biir alquran tudd ca mbaam tudd fa golo mu ngi ci biir alquran aw turam ñëw na yoo yoo mii di màtte aw turam ñëw na ñay ca la bokk jaan ca la bokk njéeréer yi ca la bokk gëléem ca la bokk jën ca la bokk li ñuy tuddee muusaa njubri ca la bokk yamb ca la bokk ba ci xorondoom ak mbaam xuux ak weñ ak till ak nag ak jargoñ ba ca ay teeñ sax teeñ ba ca ab xaj ñii de mbokk yi fi mu ne ku ci nekk aw tam root na ci biir alquran nga xamante ne buñ doon lu ñuy puukare woo tajar na puukare woo dañuy taxaw ne nag ñun nag ci téereb yàlla bi suñuy tur ñëw na ci ñun rab yi te boobaa doomu aadama itam nag su concurrence ak rab yooyu bootu rab yi gañe ko ndax tur yi ñu tudd ci biir alquran nag moom yaakaar naa ne bootu rab yay ëpp yemu ca mu am ci saari alquran yi yoo xamante nii dañ leen a tuddee ay rab muy sóoratul baqara nag lañ ko tudde sóoratul anaam muy xar ak bëy ak gëléem xar ak bëy ak gëléem sóoratul naxli ñu tudde ko yamb sóoratul namli ñu tudde ko xorondom sóoratul ankabut ñu tudde ko jargoñ sóoratul fiil ñu tudde ko ñay te fii ne boo dee xool itam doomu aadama yi dëgg la am na ci yonente yoo xam ne seeni tur wàcc na ñu tudde leen ay saar waaye rab yi itam nag ñoom itam nee nañ tudde nañ leen nee nañ seeni tur wàcc na ci alquran te tudd nañ leen ay saar loola borom bi leen bind nag mooy da leen a woyofal kon nag yow doomu aadama bu leen jéem a woyofal bokk na ca la tax nga war leen a bañ a gën a woyofal nag mooy nga di leen yërëm yëg leen yërëm leen ndax yërmaane dafa am solo lool ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci la Buxaari nett le nee na woon man laa yarxamu laa xam ku dul yërëm kenn kenn du ko yërëm nga xam ne ko loolu doy na solo ci yërmaande bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam itam waxoon ne na ngeen yërëm ñi nekk ci kaw suuf bu ngeen bëggee ka nekk ci asamaan di yàlla di leen yërëm irhamu man fi fil ardi ko man fi sama mu waxaatoon te itam yërmande day am na solo am solo goo xam ne te nii kuñ ko dind ci yow bay boo nga xam ne texe di nga laa tunzau rahmatu illa min saqi rawahu tirmisi yërmande yàlla ju yaatu jooju nag moo làmbaale yërëma yërëma yërëm rab yi rab yi nga xamante ni borom bi daf leen a tàggatal doomu aadama ngir ñu koy jariñ yërmaande jooju itam yëmut ci rab yi nga xamante ni seen njariñ dafa feeñ doomu aadama waaye ba ci rab yi nga xamante ni itam nag doomu aadama daf leen a bëgg a samp ñuy ay noonam te yàlla wàccewu leen ci kaw suuf nag ngir ñu noon doomu aadama xëy na nit moo jàppe yooyu rab ay noon waaye déedéet am nañ beneen liggéey bu dul nag di noonu ak doomu aadama buñ dee wax yërëm rab nag ci lislaam mooy dafay am li ñuy wax équilibre day màndaxe diggante jëri jariñoo jëriñoo ko doomu aadama war a jëriñoo rab yi nag loola may nañ ko ko ci moom waaye nag mayuñ ko muy soxor jëmm ci rab yi wala mu leen di foyee may nañ doomu aadama ci yenn rab yi mu jëfandikoo ko ngir faj ay aajoom waaye mayuñ doomu aadama nag muy soxor ak di añaan ak di mbugal jëm ci rab yi sunu boroom nag di wone wàccuwaay bi rab yi am ci aay yu bari bokk na ca laaye juróom ak juróom benn ak juróom ñaar ak juróom ñett ci suuratu naxli mu ne wal anaama xalaqaha lakum fiha dif'un nee na rab yi muy wax de muy xar ak bëy ak nag ak gëléem yàlla daf ko bindal doomu aadama yi ngir ñu mën caa am lu ñuy fegoo ci aw tàngoor ak lu ñuy fegoo ci ab sedd ndax dana dimbale doomu aadama su bëggee taxawal ab néeg mu mën ko caa taxawale bu koy fegal aw tàngoor ak bu koy fegal ab sedd wa manaafiu wa minha taakuluun nee na amal na doomu aadama yi rab yi amal nañ doomu aadama yi ay njariñ ndax léeg-léeg sax ñu rey leen di leen jëfandikoo walakum fiha jamaalun xiina turixuuna wa xiina tasraxuun nee na rab yooyu itam kat doomu aadama daf leen di jàppe muy lu ñuy lu muy defee ab taar rawatina su leen yóbboo sàmmi leen ba ñuy ñibbisi ci ngoon gi mu leen di xool di bég ak su leen di boyal ci suba gi ñuy yóbbu leen ca fañuy sàmmi ji wa taxmilu athqaalakum ila baladin lam takunu baalixihi illa bi siqil anfus nee na rab yi kat li tax doomu aadama yi war leen a bàyyi xel mooy suñ dee tukki tukki bu sori te ay bagaas lum diis diis diis rab yooyu lañ koy sëf ñu yóbbu leen ko moo ne ay mbindéef lañ comme ñoom de waaye yàlla moo leen tàggatal tàggat bala nga ko woon a xam ne yàlla tàggat rab yi yenn rab yi ngir doomu aadama ngir mu koy jariñoo nga dégg misaal mi ma lay bëgg a wax doomu aadama su doon dox ci digg màndiŋ ma ca digg saxraa mën naa wommat gëléem ak gëléem nam réye gëléem nangoo topp ci ginnaawam di dox di temb nangul ko lool kooko doomu sunu boroom moo ko tàggatal doomu aadama ak la muy rëy rëy waaye doomu aadama jooju di wommat gëléem gi su wëlbatikuwoon woon yem ci ku weneen rab wu yàlla tàggatalu doomu aadama day bàyyi gëléem gi ak lëm muy rëy rëy daw mooy su wëlbatikoon rek ànd ak na mu ngi wommat gëléem bu mag moomu ëpp ko fuuf moom doomu aadama mu koy wommat mu topp ci ginnaawam mu wëlbatiku yem ci as njaan su ndaw mën naa bàyyi gëléem ga daw aw xelam xoolal ki muy wommat ak kam yi daw te doomu aadama nag dëgg la yàllaa ko teral waaye nag ah nur na ni du patron àdduna si nag ndaxte sunu boroom nee na ko ku tuuti nga yow doomu aadama bu ñu la méngaleeg yeneen mbindeef yi la xalqu samawati wal ardi akbaru min xalqi naas kon yow doomu aadama na la wóor na yenn rab yi yàlla la ko tàggatal ngir ma nga doon jariñoo kon mu ne inna rabbakum la raufu rahim bu ngeen seetantalee loolu dangeen xam ne yàlla ku leen bàyyi xel la yéen doomu aadama ku leen yërëm la mu ne wal xayla wal bixaala li tarkabuha wa ziina wa yaxluqu ma la taalamuun na noonu ma leen tàggatale xar yéeg bay yéeg nag yéeg gëléem yi ni laa leen tàggatale fas ak ber barkele ak mbaam yi ngir ngeen leen man di war ak ngir ñu mën a nekk lu ngeen di waaj waajee ngir mu nekk ab taar loolu itam kon lu mat a bàyyi xel la ginnaaw nag sunu borom mi la bind bind rab moo ne maa leen boolee nii yow doomu aadama war ngay bàyyi xel loolu ci sa jëflante sa digganteeg rab yi sunu borom yëmu ca mu ne xanaa xoolu leen picc picc mi naaw ci asamaan si di tàllal ay laafam ku ngeen yaakaar ne moo ko fa téye ku ngeen yaakaar ne moo ko fa téye ba mu mën a naaw ci asamaan si ku ngeen yaar ne moo ko yaakaar ne moo ko fa téye ku dul yàlla alam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi samaai maa yumsikuhunna illa allah inna fi dalika la ayatin li qawmi yuminuun nee na loolu ku am xel ku ne boo ca xalaatee dana war a yokk sa ngëm wallahu jaala lakum min buyutikum sakana yàlla moo leen defal ci seen kër yi muy seen dëkkuwaay wa jaala lakum min juludil an'ami buyutan tastaxifuunaha moo leen may ak xarala itam ngeen jël deri deri nag yeeg gëléem yéeg xar yeeg bëy yi di ci defar ay kër ak i néeg ak i mbaax yoo xamante ni su leen neexee ngeen bu ngeen di def ay déplacement ci bu ngeen di tukki yóbbaale ko mu woyof lool su leen neexee itam samp ko mu sax may leen itam seen kawar yi kawari rab yi ngeen mën koo jëfandikoo di ci def defar ay jumtukaay di ci def ay yére itam loolu lépp nee na ku ko xam danga xam ne rab yi daal dikkuñ fi yàlla bindu leen ngiru neen am nañ fi njariñ nag te bu ñu fi amee njariñ nag doomu aadama war na leen a jox gëdd ak yërmaande jañ yeyoo alxuraan tam woo ñun ñépp ci ñu war a yittewoo rab yi ak sàmm ko ba tax na ma wax ca laaye juróom fukk ak ñett jàpp juróom fukk ak ñeent ci sóoratu taaha ne yàlla mooy ki nga xam ne moo leen tàllalal suuf bam tàlli mu wutal leen ay yoon yoo xamante ni bu ngeen bëggee dem ci dëkk ak morom ja du ngeen réer moo leen wàcceel am ndox ci asamaan saxal leen gàncax yu wuute kon lu leen dese ku loo kuloo waraaw anaamakum bu leen dese weesul rekk ngeen lekk ci gàncax googu te sàmm ci seen ak jur inna fi daalika la ayatin li uli nuha nee na lii ma wax na ka koy bàyyi xel mooy kuy jëfandikoo xelam kon gàncax gi gi ngay gis ci kaw suuf bu doomu aadama yaakaar ne moom nga ko moom ndax dane kuloo waraw anaamakum lekk leen ci yéen doomu aadama ci gàncax gi waaye itam na ngeen ci sàmm seen jur gi kon bu ko doomu aadama bëggee xaakimoo rek ne man maa ko moom rab bokku ci fala tooñ tàmbulee fala yem kon loolu ñu xam ne kon ku ko settantal da nga xam ne rab yi am nañ njariñ ci kaw suuf mu waxaat feneen ca laaya juróom-ñaar fukk ak benn juróom-ñaar fukk ak ñaar juróom-ñaar fukk ñett ci sóoratu yaasin ne yéen xanaa gisuleen yoon doomu aadama li ma li li ma bind man yàlla ci sama loxol bopp ci ak jur foofu la mu waxoon ne li ma xalaqtu bi yaday ca doomu aadama nee na doomu aadama maa ko bindal sama bopp ci sama loxol bopp man yàlla moo ne fi la wëlbatikuwee itam ne rab yi maa leen bind ci sama loxol bopp man yàlla awalam yaraw anna xalaqna lahum mimma amilat aydina anaaman fahum laha yàlla ma bind ko ba noppi may leen ngeen di woote ne yéen moom rab yi wa dallalnaaha lahum ma tàggatal leen rab yi ngeen leen di digal ñuy jëf fa minha rakubuhum wa minha yakuluun lenn ci rab yi ngeen leen di war lenn ci ngeen koy jëfandikoo walahum fiha manaafiu wa mashaaribu mu amal leen njariñ lool ñoom rab bi amal lool njariñ doomu aadama ñu cay dund waaye wa mashaaribu di naan ci seen soow yi di faju ci liy génn ci rab yi loolu ku nekk xam na ne kon nee na afala yaskuroon nee la la waroon doomu aadama bay settantal loolu mooy mu sant yàlla moo tax nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam noonu ci addu alquran feeñale wàccuwaayu rab ak njariñam noonu la ci sunna si yonent bi aleyhi salaatu wasalaam itam dikkee di ko leeral jullit yi am na bis yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di tukki ànd ak saxaabaam ci biir saxaaba yi ñu am fu wàcc am lenn ci saxaaba yi yu doon doxantu ba fekk am picc mu am ay cuujam fekk picc ma génn tàgg ma ñu jël cuuja yenn ca saxaaba ya ñoo jël cuuji picc moomee ba picc ma ñëwee fekk ñu jël cuujam ya muy biiw di naaw di wër tàgg ma ngir wone ne am na lu muy seet ngir wone ak jaaxleem ba yónnante bi seet loolu daal picc mii day li tax muy biiw xanaa dañ koo tooñ muy dem ba seetlu ne tàggam mi dafa amoon ay cuuj ñu won ni ko jël ko yóbbu yonent bi coppa moo ne ana ku jël cuuji ndey jii ndax ndey la yaay ngi nii da a jël cuujam yi ana ku ko jël daal ne ngalawaay delloowaat leen ko ay doomam kuy wax yonent bi ci li muy wax am picc muñ jël ay cuujam ñu muy waxal saxaaba ya bind bu rëy la mbokk yi ci ne maanaam li doomu aadama di yëg ci diggante ndey ak doom rab daf ko yëg ci diggante moom ak cuujam bu dee am picc moom ak doobam bu dee rab yeneen yi ci des ba tax yónent bi ne ruddu ilayha waladaha delloowaat leen ko ay doomam ngir yërëm ko ci coono ba ko dal loola ku ko dégg kon danga xam ne yonent bi kat jox na rab yi wàcc waay bu rëy ginnaaw nag mbokk yi xam nañ ne ay mbindeef a ngi ni yoo xamante ni ñoo ñoom ñoo yem ñun doomu aadama ak rab yi ñoo yem lu tax ka bind nit moo leen bind ka bind doomu aadama moo bind rab muy benn wëlbatiku sagal doomu aadama ne ko tàggatal naa la yenn yi nga ciy jariñu muy ñaar yooyu rek waroon naa tax nag kon ñu xam ne lii ñu bëgg a waxtaane lu mat a bàyyi xel la kon suñ bëggee jëfe ndigal li ñu sariya jox ci suñ digganteeg rab yi nu ñuy def loolu lañ jëmale waxtaan wi la ca njëkk nag mooy yow mi yàlla dénk aw rab muy fas muy mbaam muy gëléem muy xar muy bëy muy leneen ngalla na ngay sonn ci di ko jox muy lekk di ko jox muy naan na sonn ci di jox rab yooyu ñuy lekk di ko jox ñuy naan bu bugal ndax li tax nga war ko jox muy lekk ak di naan laaye fanweer jàpp fanweer ñett ci sóoratu naziat lañ koy jànge sunu borom ma ngi fay wax ne wal arda ba'da dalika dahaha maa ngi nii suuf man yàlla maa ko tàllal ba fu leen neex ngeen man faa dem yéen doomu aadama axraja minha maaha wa mar'aha maa ci maa taw mu saxal gàncax wal jibaala arsaaha maa seet ay montagne ma placé ko fenn ngir suuf si bañ a rëng-rëngi lu tax ma def loolu man yàlla mu ne mataan lakum ngir mu nekk seen bànneex yéen doomu aadama waaye du yéen dong le wali anaamikum yéen ak jur gi yéen ak jur gi kon doomu aadama nga la soo àndeek saw fas yow baykat bi nga ànd ak saw fas ànd ak sa mbaam walla bayoo da ngaa takk ab sareet sa fas wala sa mbaam di ko sëf mu lay liggéeyal nga cay daw dépense yow baykat danga ànd ak saw fas ak sa mbaam ak sa saw nag ca tool ba loo yëg ci aw tàngoor ma ngi koy yëg loo yëg ci ab sedd ma ngi koy yëg lépp mu muñ ko ngir ne yàlla moo ko moo la ko tàggatal ba mbay ma ñor bu dee dugub nga jaay dugub ja yow doomu aadama bu dee gerte nga jaay gerte ga ba jaayaale ngooñ ma ba jaayaale ngooñ ma fàtte ne am na koo xamante ni ba nga nekkee ca tàngoor wa yaa ngi moom moo fa nekk noonu muy fas wa di mbaam ma di nag wa nga jël sa wàll ba mu jeex tàkk jël wàllam jaay ngooñ mépp noor jot nga ne jur gi amuñ luñ lekk amoon nañ ko yaa lekk sa wàll ba mu jeex takk nga lekk wàllam loolu du ngor loolu du ngor ca dëgg dëgg dëgg loolu rafetut xanaa lu mu néew néew moom mi nekkoon ak yow ca tàngoor ba ak loo bëgg bëgg a jaay jaay nga bàyyil ko fëlu bi dunde rafetoon na jekkoon na ndax yéen ko séq ndax mataan lakum wali anaamikum yéen ak jur gi yéen a ko séq loolu kon ñu bàyyi ko xel waaye yow mi xam danga da koo takk sareet nag bayloo woo ko waaye da nga xëy di ci daw dépense bët bu set mu indi la dépense nga dundee ko yow yaag sa njaboot ba noppi fu dëkk sax nangoo ko wutal di ko sëf ci digg naaj bi ci digg sedd bi ba noppi sax am ngooñ nangoo koo jëndal lu mu am ak coonaam yaag jooyam yàgg yépp nga xañ ko ko ba noppi yaakaar ne yaa nga ca déedéet nii ko mbokk mi waxoon ci njëlbeen ak waxtaan wi nit dugg na sawara ngir mbugal gum mbugal am muus te muus dafa bokk ci rab yi nga xamante ni dafa lànk ne doomu aadama lay dëkkal ndax am na ci rab yi ñoo xamante ni nee na ñoom dañoo giñ ba daanu ci suuf tëdd ci suuf ne fa doomu aadama dëkk la ñuy dëkk boo tabaxee ba nopp ñi ñëw dëkk muus ca la unk moomu sax ca la salaire yi ca la janax yi ca la ñooñu ànd ak ne yow da ngaa gëm ne dañ la yàqal waaye moom man mën naa am fa nga gëm ne yaa ko moom mën naa am mu gëm ne te muy dëgg da ngeen a am lu ngeen bokkoon yéen ñaar yow ak rab nga xaaki moo ko bàyyi ko ndax suuf si la lu waaye man di wax boo tabaxee ci kaw suuf nga ko tabax te sunu borom nee noonu wal arda wadaaha lil anam nee na suuf dama ko placé pour mbindeef yi mbindeef yi nag nit a nga ci raba nga ci am na jigéen joo xam ne tàbbi na sawara te la ko waral mooy am muus moom tëj joxu ko mu lekk joxu ko mu naan mu naan bàyyi ko mu wuti lu mu lekk ba faatu sunu boroom jéppi ko ba tàbbal ko sawara ndegate kon sàggane rab mën naa tàbbal diit sawara wala yaasu billaah yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moo ko nettali waaye nag yërëm rab ak fonk ko ak yëg ko mën naa tàbbal nit aljanna ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon na nettali saxaaba mi ne ko am na jenn waay joo xamante ni dafa doon tukki ba mar mu gis ab teen wëgg ca ba naan wëlbati ko gis ab ab xaj boo xamante ni ma nga sonn lool ngir aw mar mu xam ne xaj bii li da li ko daloon moom doomu aadama ciw mar moo ko dal mu wëggal ko jox xaj ba mu naan ba màndi sunu borom sant ko ca jëfam joojee ba jéggal ko tàbbal ko aljanna kon nekkate mbugal rab dana taxa tàbbi sawara woon iyaasu billaah waaye teral rab itam dana taxa tàbbi aljanna loolu itam yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moo ñu ko nettali ba mu waxee loolu saxaaba yi ne ko ah waaw yonente bi bàyyi ma yi sax nit mën na cee amee tuyaaba mu ne waaw waaw xanaa xamule ne yàlla lu bind te wutal ko aw res manees na caa amee tuyaaba te rab yi ca lañ bokk a ah, inna lana fi lbahaimi la ajran ya rasulallah qaal fi kulli kabinin ratbatin ajr moo tax yonente bi alei salatu wasalaam ci kaw maa ngi ba léegi ci li njëkk mooy war di jox rab muy lekk ak di naan di lekk ba suur nag laa wax ak di naan ba mën di yonent bi mas naa romb ak gëléem goo xamante ni dafa sonn lool làpp lool xiif lool baa nga xam ne ginnaaw gi dafa mel ne biir bi dafa ñëw kole ci ngir xiif yonent bi romb gëléem googu yërëm ko lool daal wax saxaaba yi na leen ittaqullaha fi haadihi lbahaimi almujama tey ngeen a ragal yàlla ci rab yi farkabuha saalihatan wa kuluha saaliha dee leen toppatoo rab yi ba mu baax ba bu ngeen ko bëggee jëfandikoo ci war di doxi seen soxla man ko dee leen toppatoo rab yi ba mu baax ba su ngeen ko bëggee jëfandikoo ci dunde ko itam man ko loolu mooy kon ala xaalin doomu aadama dafa war a yëg rab di ko jox muy lekk di ko jox muy naan yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon na itam amul benn jullit boo xam ne dana jëmbët ak jëmbët walla muy bay am mbay ba njëmbët moomee meññi wala mbay moomee ñor am picc jaar fa cos ca dara lekke ko wala nit jaar fa jël ca dara lekk ko wala bàyyi ma beneen jaar fa jël ca dara lekk ko lu dul na yàlla daf ko bindal muy ab salax loolu kon dafay soññee ci ñuy yittewoo rab yi ci di leen jox ñuy dund yónnent bi yeggoon na ci sonn ci bëgg nit ñi di sonn ci rab yi di leen jox ñuy lekk ak ñuy naan ba ne woon su fekkee da ngeen da a war ay gëléem di tukki su fekkee da war ay gëléem di tukki nee na su fekkee da ngeen war ay gëléem di tukki ci jamono joo xamante ni dafa naat ñax am nee na bu boobaa bu leen gaawal bu leen gaawal tukki bi dee leen dox ndànk ngir may gëléem yi ñu mën a for dund ci ñax moomu nga xam ni ak naataange jooju waaye su ngeen tukkee su ngeen dee tukki nag war ay gëléem ak fas masalan ci waxtu woo xamante ni waxtu bekkoor la nee na na ngeen gaawantu ba mën a yegg foo xam ne ñax am na fa ba gëléem yi mën caa dund wala fas yi mën caa lekk mu ne bu ngeen dee tukki guddi itam na ngeen di wattandikoo wàcc ci digg yoon wi ndax nee na mooy dëkkuwaayu rab yi te bëgguma ku ku lor rab yi loolu lay firi kon foofu xaddis boobu ñu mën fee déggee ne yonent bi yitte woon rab ba di ko bàyyi di ko kiy tukki nee na na koy wutal programme su nekkee ci waxtu naataange ñax am bu waree aw rab bu mu gaawal tukki ba ndax man koo may occasion muy for ci ñax mi waaye suy tukki ci waxtu woo xamante ni bekkoor la ñax amut na gaawantu ngir mën a jéggi fu bekkoor fa ba mën a yegg fu naat loolu ku bàyyiwut xel rab yi doo digle loolu kon yonent bi dafa bëgg ñuy bàyyi xel rab yi yonent bi aleyhi salaatu salaam yeggoon na ci muus muus mii ñu dëkkal muus ma nekkoon ci biir këram yonent bi dafa ko daa xëcc ba mu ñëw moom muus mi mu wut ndab loo xam ne daf cay def ndox moom yonente bi ñëw wengalal muus mi bool bi ngir mu mën caa dëtam ba mën a naan moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam day wengalal bool bi muus mi man muus mi naan ba mandi nee na la ca des nag mu jël ko dem jàppi jàppe ji ko moo tax nag fax su fekkonte ne ndox néew na nga xam ne la nga am mën na la loo jàppe waaye aw rab a nga ci wet gi sax boo xamante ni am lum amut lum naan nee na dem joxal ndox ma rab ba mu naan ko te nga dem tiimi joxal rab ba mu naan ndox ma te nga dem tiimi ah fi mu lii lii duy lépp duy lu pen fii ñu nekk muy Touba yi bu Mbacké moom xaadimu rasul radiallahu anhuma noonu la fonke woon rab yi nee nañ biir këram daf ci am kees goo xam ne dañ fa daa daf laa daf daan digle moom sëriñ Soy ñu fay wesaare pepp ngir picc yi man ñëw di ci for mën a ñëw di ci for kuy def loolu sëriñ Soy bu daan wut barab yoo xamante nii dañ koy tabax wala ndab di fa sottim ndox saa su ndox ma jeexee ñu dolliwaat fa ngir rab yi ñëw ak picc yi di ca naan ku def loolu sëriñ Sohaybu xam nga kooku kooku rab ya xam nañ ne sëñ Sohaybu boo ngi fi képp ku roy ca loola itam nag rab yi dañ lay yëg waaye ku ca jaarut itam nag rab yi dañ maanu ci yow itam nag xam ne am na ku la gën te Seex bu nag ku mat a roy la ci loolu sëriñ Abdul si si baax mu maam alxaaji malik si doomam moo nettali ne jóge na jagsaaw dëkkam boobu ñoo ko jagsaaw dem Dakar dugg otoom dem ba wàcc Dakar foom génnee ay yéreem gis ca benn gunóor aw sànq lañ sax la wax defe naa wu ca takk mu ne ah mbir am na de sànqaleñ bii de wala gunóor bii de xam naa ca gunóor yi jag saa wee la ma toppe xool leen ko nu mu def ne sëfoor bi taalaatal oto bi nga boole koog mbubb mi ak gunóor bii delloo jikwaat ko jag saaw te dikk na ba Dakar doomam jooje nett li nee na moo waxaat ne itam moom sëriñ Abdou Aziz bu ma saa gëj këram gi ci dakaar te ay muus nekkoon fa nee na day yónnee ay kilo yàpp ca marché ba ñu daggate ko ne dem leen jox ko muus yooyee ndax gëj naa fa yi mbokk yi ay bind la yoo xam ne yu rëy la te ci Sénégal sunu Sénégal gii la xewee comme bu ñu la waxee lee ci alxuraan wax la ko ci sunna duy lu duy lépp duy lu pen ku cay roy rek man caa yegg kon tomb ba njëkk moom lañ jeexal mooy rab dis koy jox muy lekk ba suur di ko jox muy naan ba màndi ngir jëm yàlla ngir roy ca yonent bi ak roy ca nit ñu baax ñu ñaareel ba ku yore ay rab ak ku ko yorewul sax war ngay xënte di leen wutal fu ñuy dëkk di leen wutal fu ñuy dëkk lu tax ngir sax nga fegal leen tàngooru jant bu mett bi ngir sax nga fegal leen taw bu metti bu bari bi ngir sax nga fele fegal leen sedd bu metti bi moo tax euh, ba lislaam di dox dëgg dëgg dëgg ca attraak ya nee na ñoom ku ma tabax sax yeggoon nañ ci silvise koo xam ne ba ba ku ma tabax sa kër boo demee ca kaw mason ba dala fay defal ab as néeg su ndaw ngir picc yi di fa mën ji noppaloo loolu xam nga ne kon lislaam fam fam yeggoon ci fonk rab yi kawe na fam yeggoon ci fonk rab yi kawe na moo tax nag rab yi nañuy sonn ci ñu am fu ñu leen di dëkkal ngir benn ci yu ñuy wax seen àq la de àqi rab yi la ci ñu wutal leen fuñ dëkk rawatina rab yi nga xam ne sunu borom dañu ko tàggatal ñu dëkk ak ñun àq ci ñoom ñu wutal leen fuñ dëkk ndax dañoo yem ak ñoom ci kaw suuf si ñoo fi bokk dëkk ñu am ci sañ-sañ rab yi am ci sañ-sañ ndax wal arda wadaaha lil anaami laa fukk ci sootu rahman yàlla nee na suuf si dama ko bind pour mbindeef yi mbindeef yi nag kenn du ko yemale ci nit ñi rekk waaye nit ñi la ak rab ji mu wax ne itam maa maa tàggat man yàlla picc yi bañ mën naaw ci asamaan si kenn téyewu leen ku dul yàlla kon nañuy wutal rab yi rawatina yi dëkk ak ñun dañ leen di jëfandikoo di leen yar ak di leen jëfandikoo ci liggéey nañ leen di wutal fu ñuy dëkk nañ leen ko wutal ndax seen àq la ñetteel ba ginnaaw boo sonnee ci wut lu leen di dundal wutal leen fu ñu dëkk na nga leen jox worma nag ngir ne ngir ne yàlla lañ ñoom rek moo tax Sëriñ Tuubaa bi nga xamante ni lu baax rekk lañu bëggal moom dañu waxoon ne mbindeefu yàlla moo gis nang ko jox àq ak gëdd akub cër ngir xool ci jëmm yàlla ma ko bind rekk warai fi kulli xalqin xaqa man xalaq wax ju gàtt la wax ju gàtt la waaye ju réy la nee na mbindeef moo gis nang ko warmaal ngir sàmm ci moom àq yàlla ma ko bind kon nañ wormaal rab yi ngir ne am nañ àq ci dund gu teey ci lekk gu teey ci naan gu teey ci faj mu mat ci noppal leen ginnaaw buñ ñu sonnee jox leen lekk gu doy gu sell jox leen naan gu doy gu sell di leen faj suñ woppee di leen noppal suñ sonnee ndax mbindeefi yàlla lañ ñeenteel ba mooy ñu bañ leena a lor ñu bañ a tab teg rab bi loraange loraange nag ñaari façon la loraange ci jëf ak loraange ci wax nit mën naa teg rab loraangey jëf mën na koo teg loraangey wax ñu tàmbali ci loraa ngay jëf ji doomu aadama mën a teg rab ba ca njëkk mooy bu ko dóor bu ko dóor rab yi yàlla wàccewu leen ci kaw soof si ngir mbindee fi di leen dóor ndax lu dul dara sax doomi jàmbur lañ di te way jur bu nekk nag bëggul ku dóor doomam bu dul dara sax mbindee yàlla lañ de te yàlla bindul leen ngir ñu dóor leen te dóor tasaaroo na lool ci jamono ji gisoon naa jenn waay joo xamante ni dane du du dóor mbaamam mi ak xiir ndax da koy xasanal yat wu rëy lay wut di déeri déeri rek ba muy dóoxul ndeysaan mu defe ne moo ca nekk bàkkaar yu rëy la bàkkaar yu rëy la am na ñoo xam ne dañuy dóor rab ba mu dagg di naaj ñuy dàkkaat foofu di fa dóor muy jooy di dem rek ba noppi di la liggéeyal ngay jox sang njaboot dóor mën naa moytandiku de dóor rab yi mën naa moytandiku ñu ngi koy fegale doomu aadama yi ñi ma woo leen ko def waroo ko def sa moroomi rab yi ngir bàyyi xel yàlla ma leen bind te daf leen ko dala ko tàggatal rek ngir ak mbaaxam waaye joxu ko ngir nga dóor kon dóor baaxut wutal ko màndarga itam baaxut wutal rab màndarga baaxut man dama am samay xar dama bañ mu jaawaloo ba damay wut ak weñ dem ca taal ba sooyal ko ba mu xonq coy ma wut ci aw rëdd daas ko ci mi mu dagg ba koo gis xam ne lii maa ko moom yónnent bi daf koy tere sallallahu alayhi wa sallam te tasaaroo na ci te lu mu tasaaroo tasaaroo ak lu mu bari bari bari taxul mu jàkk rab kenn du ko wutal màndarga moo koy xàmmee rut rawatina màndarga moo xam ne ci yaram ba nga koy defee man nga ko wutal nag loo ci takk ci baat bi loo xam ne soo ko bëggee tekki mu yolom nga dindi ko waaye ñëw tàngal lu tàng jir ñëw na dama cee def kuttumbal saa xar yëpp wala saa nag yëpp wala saa bëy yëpp laay wutal ab kuttumbal ngir ku ko sàcc ma man koo xàmmee bu ba futtal yaram ba dagg ko ba mu wér nga ne xàmmikaay baa ngoogu dem jaaxal ah, xàmmikaay bi mett na de loolu rey na te yonent bi daf ko tere ndax yonent bi alayhi salaatu moo tere woon kuy wutal màndarga rab yi ak di di tàngal dara ba mu tàng nga leen koy daas ngir wut wutal wut wut ko xàmmekaay daf ko doon tere moo tax yonente bi masoon naa fekk masoon naa romb menn mbaam moo xamante ni boroom mbaam ma da ko wutal màndarga ca xar kanam ba yonente bi alayhi salaatu wa yàlla rëbb na ki wutal mbindeefam yàlla mii màndarga mii daas ko ci weñ gu tàng bi ba wutal ko màndarga yàlla rëbb na ko te rëbbam yàlla mooy dàq ko ci yërmandeem wala yaasu billah kon rab kenn du ko dóor kenn du ko wutal màndarga kenn du ko daas lu tàng waaye kenn du ko tëj tëj ba mu ne kàpp ngelaw dugut leer dugut ku la ko defoon yow mi def du la neex bi tey ak moom yéen a bokk wàccuwaay mbindeef nga muy mbindeef yéen a bokk soof si itam yàlla la ko tàggatal rek waaye waxut nga tëj ko nag ba du am aération ngelaw du dugg ci moom muy mbugal lu rek aku tàngoor kenn wërta tiital aw rabitam ci wax ak jëf loolu misaal bi ma ci joxe mooy am na ci rab yi ñoo xamante ni dañoo lànk ne doomu aadama la ñuy dëkkal te am nañ ci àq muus yi ci la bokk xaj yi ci la bokk ñoom sax ñoom ndeysaan dem nañ ba xam ne doomu aadama ab tooñkat la ba fuñ ko fuñ ko seen daw fu la muus seen daw fu la xaj daw seen daw dootuñ tempati ndànk sax ci sa dem lu dul muus dafa ràññee ne kii ko silvisé la ndax muus day ràññee xaj day ràññee yenn rab itam dañu ràññee dañu xam ne kii kat ku baax la nit la waaye ku baax la nag moo tax moom mën naa jaar ci wetam dox waaye am na koo xam ne bu koy seen di daw muus day di daw ndax lan fu mu ko seen yooxu ko moo lu mu joteeg moom lu mu joteeg moom da ngay dox ci kaw suuf si mu ngi dox yàqalu la dal di dem waaye foo ko yéene woo xaj baa ngoo xale yi topp ci sànni mu ngi daw te jotewu leen dara boo leen taxaw ne waaye xaj bi ngeen di dàq muy daw lu mu leen def kenn du la jox tontu lu dañ koo bëgg a dàq daal dug sil de kon di tiital aw rab ci wax ak jëf jagut waaye di ko sëf lum àttanuti tam ba tey loraangee jëf yi laa nekk di ko sëf lum àttanu rafetut aw fas mbaam nga sëf koo sëfa sëfa sëfa sëf ba muur na ne yow sax yow mënutoo caa toog waaye da nga koy womat muy diri ay tànkam ak gannuus bi nga boole ko ki dóor ci diggu tàngoor bi ak naaj bi ba noppi yaakaar ne naataange dañ tasaaroo yow moom boo ko defee sa morom def ko sa morom def ko nit def ko junniy rab di doo di jooyandoo ci Sénégal par waxtu wu nekk musiba la ah, rab yi doon la ñaanal kay ak ak moo gënoon nag wax dëgg ay ay rab di la jéppi kon di sëf rab lum lu mu àttanut jagut moo tax Abu Darda ba mu yoree ak gëléem ndeysaanam abu darda saxa as saxaabiyul jalil ba mu yoree ak gëléemam ba gëléem ga di ko jëfandikoo ba gëléem ga yàlla moom ko mu faatu dafa taxaw ne gëléem bi ee yow gëléem yaa ngi nii faatu nga nag waaye day laatu tuxaasim ni inda rabbik bul ca dem ca sa kanam borom mukk di ma fa jàmbat de ndax fa inni lam akun uxammiluka fawqa taaqatika maa ngi seere ne musuma laa teg loo àttanut loolu nag safaan ba mooy ku koy teg lum mu àttanut nag bu demee jàmbat la rek bu demee jàmbat la naka noonu itam di ko sonal ci ab daw su sonnee ak su sonn soo yàkkamtee ak soo yàkkamtiwut fas daal daa war a daw mel ne fas dañ koo bind rek ngir daw déedéet fas dana daw dëgg la waaye da war naa temp itam fa nga jëm yàkkamtiwoo lu tax nga ne day daw baaxut di moo tax Ali ibn Abi Taalib nee na woon su ngeen gisee ñett ñu togg wennaw fas wala wennaw mbaam ñetti nit ñàkk xel ba kii toog ci kawam kii toog ci kawam kii teg ci kawam ñi ñett Seydina Aliyu nee na na ngeen leen sànni ay xeer ba kenn ci ñoom wàcc ko ida raaytum salaasatan ala dabbatin farjumuhum xata yanzila ahaduhum <coughs> na ngeen na leen jaral ngeen leen di sànni ay xeer ba kenn ci ñoom wàcc kenn ci ñoom wàcc ngir am xel wala wàcc ngir xeer yi waaye bu leen leen bàyyi noona waaw kon nag kon nag ñi nga xamante ni ci lañ dëkk nag sareet bi moom moo ma yoral sama dépense xam naa ne fukki nit la àttan waaye naa ci teg fukk ak juróom te dëkke ko bu ñu doon jëfandikoo la imaam Ali waxoon day say xeer dana bari say xeer dana bari tañ xam na nag rab yi dañuy jàmbat yonente bi mas naa dugg ci benn tool boo xamante ci kenn ci waa ansaar yi ñoo ko moom mu fekk fa ak gëléem moom yonente bi ba mu demee ba jege gëléem ga jële gëléem ga dafa yóoxu daldi jooy baron xañ di tuur di tuur yonente bi gis ko ñëw fab loxoom bu tedd ba teg ko ca ndongal ndongal gëléem ga raay ko gëléem ga ne cell yonent bi ne ana ku moom gëléem gii ci yéen am ku ñëw ci waa ansaar yi ne ko man maak moom yonent bi ne ko xanaa mënoo ragal yàlla ci bàyyi ma wi xanaa xamoo ne yàllaa ko moomoon dala cee jox ab cër tàggatal la ko rek xanaa xamoo ne gëléem gii daa ñëw ci man jàmbat mala ne ma dangaa dëkk ci di ko xiifal danga dëkk ci di ko teg ab coono ñu dégg ci ne ko di dëkk ci xiifal aw rab te di ko tey di ko sonal te di ko tey dana waral rab woowee jàmbat la su gisee kum la mën a jàmbat ku mel ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam <coughs> fonk rab nag ak bàyyi ko xel taxoon na Seydina Amr ibn As ba mu dikkee Égypte ñu sampal ko fa ab xayma ba mu fa nekkee ba bëgg a ñibbi dañoo ñëw ngir bëgg sempi xayma ba fekk fa am picc mu tàgg ca kaw ba nen fa ca kaw xayma ba ñëw na ko sëñ bi mu ne mu ne ko ah, bëggoon nañoo sempi xayma bi de waaye am na am picc mu tàgg ca kaw ba nen fa nu ñuy def Seydina Amru ibn As ne ko bàyyi leen ko fa bàyyi leen fa xayma ba ngir picc moomee ak tàggam moomee ak nenam yooyee gaaye bàyyi fa xayma ba ak picc ma ak nen ya Seydina Amru ibn As ñibbi bi nga xamee ne nit ñi ñibbi na bàyyi fa xayma ba ak picc ma ak nen ya ak tàgg ma ci la nit ñi ñëw di barkeelu ba wëralee seeni kër ñu wër xayma boobee xayma ya ak kër ya di mujj di bari ba soppeeku madinatul fustaat nee nañ mooy alxaayira di capitalu Égypte mën nañoo xam ne kon kon kooku fonk fonk fonk rab moo tax ab dëkk bu toll noonu sosu muy madinatul fustaat ñu koy am misral qadima maanaam na ni rek sama sama sama xayma la moo ma tooj lu tax mu ciy tàgg ba ciy nan dama koy yóbbu waaye waaye ana moom ak wane ay jikko yu rafet ak bind yu rëy ba nga xam ne moo tax ñu koy nett tey jii kon loolu mooy loraangay jëf kenn du ko teg bàyyi ma waaye ngay wax itam kenn du ko teg bàyyi ma <clears throat> lu mel ne di ko saaga man dama xamul du ñuy saaga aw rab ci dëgg dëgg dëgg jaaxal na ma boo ko saagaa du fay xanaa tàmm lu bon la rek am na ñoo xam ne dañuy saaga bay saaga mbaam di saaga fas di saaga gëléem di saaga nag <coughs> ak di ko ŋàññi ak di ko gëdd ak di ko rëbb te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na woon ganaar sax bu leen ko rëbb séq bu leen ko rëbb xanaa xamule ne day yëgle waxtu julli laa tasubbu diika fa innahu yad'u ila salaa kon kooku bëggul ko kolor du ci ay wax du ci saaga du ci ŋàññi du ci gëdd yonente bi da doon tere loolu ni tere woon kuy rëbb aw rab di ko móolu móolu aw rab te nit ñi ñu ngi koy def nag <coughs> nee na yonent bi nekkoon na ci benn tukki biir tukki bi ak jigéen ànd ku ànd ci ku bokk ci waa ansaar yi waroon ak gëléem gëléem ga nara màmm mu mere ko ba rëbb ko rëbb ko jigéen ja moo rëbb gëléem ga moolu ko ba ko yonent bi déggee daal ne xuzu ma alayha wa da'uha fa innaha mal'una gëléem googu soxna soo su rëbb day ba yeboo ngeen génne ko ci tukki bi lu tax ndax rëbb gi mu ko rëbb nga xam ne jaral na yónnante bi kookee la mu lépp mu ne ko wàcc ko dañ bàyyi ko fi te tukki ñu lem lu tax luy ndey nga koy rëbb luy ndey nga koy rëbb ak luy ndey nga koy móolu moo tax sayidina isa ibnu maryama ci mu watta bopp imaamu malik imaam Malik ma ngi fay nettali ne am na bi bis yonent yàlla Isaa di dox ànd ak ay saxaabaam ñuy dox ba sàgg benn mbaam xuux benn mbaam xuux na a traversé seen yoon bi mooy dogale leen yonent yàlla Isaa def na sëcc taxaw ñu defe ne lu nekk lay wax mu ne mbaam xuux jàllal ak jàmm unfus bi salaamin jàllal ak jàmm mbaam xuux jàll ak jàmm mu doog di continuer aw yoonam saxaaba yam àndoon ne ko ah Seydina Isa ba ci rab yi sax ak mbaam xuux yi moom nii ngay jëflanteek ñooma mu ne ah waaw inni laa uridu an uawida lisaaniya al muntiqa bi suu xanaa bu dul dara sax man bëgg ma tàmmal sama làmmiñ wax ju ñaaw aka wuuteeg ñi nga xamante ni fu ñu seen xaj na ko kuri xaj moom xamul mu def gaañ fu ñu seen a muus itam bu leen defu dara ñu kolaas ko kii nag moom nee na ne na ko unfus bi salaamin jàllal ak jàmm dafa yëg rab daf koo jox dayoo dafa xam ne mbindeefam yàlla la juróomeel ba rab su nekkee ci ay situation yoo xam ne mënu caa génne boppam war nañ ko caa jéem a génne ñun nit suñ fekkee aw rab woo xamante nii dafay bëgg a lab ci am ndox nañu jaral pexe yu nekk ngir xettali ko su fekkee dañoo gis aw rab boo xamante ni fam nekk ma ngay lakk nañ jaral lu nekk ngir ñu sowe ko su fekkee gis nañ aw rab boo xamante ni ma ngay daw wuti ak kàmb te suñ ko bàyyee mu tàbbi ca nañu jaral lu nekk ñu dox digganteem ak kàmb googee wala ab teen suñ gisee arab boo xamante ni dafay yëg fenn tëggateem ba fa munta wàcc nañu jaral lu nekk ngir ñu wutal ko lu mu wàcce foofee suñ gisee rab woo xamante ni dafa nekk ci waxtu woo xam ne dafa war a am doom nañ ko dimbale ba mucc ak jàmm ak leneen ak leneen kon rab soo gisee mu nekk ay situation yoo xamante ni ab dogal la bu wàcc ci moom te nga man ca dara nanga def sa kemtulaay kàttan ngir sobe ko juróom benneel ba aw rab kenn du ko rey te amoo ca aajo aw rab kenn du ko rey te amoo ca aaja ndax yonente bi aleyhi salaatu wasalaam sax yeggoon na ci ne xam naa xaj ya la jëloon nañ leen mu ne ah xaj yi day bari nañ bari goo xamante ni suñ nekkutoon aw xeet comme niñ nekkee aw xeet ñun doomu aadama danaa digle ñu rey leen waaye safaan ba mooy du ma digle ñu rey leen nga ne aw xeet lañ comme niñ nekkee aw xeet ñun doomu aadama yonente bi aleyhi salaatu wasalaam mooy wax kon ay rab luñ la lëjël lëjël bu leen faagaagal ngir bëgg leen fee jëlee dangay ngay sonal sa bopp ne doo leen fi jëlee ndax kala bind moo leen bind moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam tere woon ñuy raw rey aw rab te teguñ ko fenn mu ne woon amul jenn doomu aadama joo xam ne dafay fekk am picc mu rey ko te tegu ko fenn lu dul ne ëllëg bis penc yàlla dana ko taxawal laaj ko ne ko lu tax nga rey picc mii te tegoo ko fenn moo tax nag kii aw rab la rek naa ko rey mooy kii mbindeefam yàlla rek la ko rey te bu ëllëg bu la yàlla ne lu tax nga rey sama mbindéef mii looy looy tontu looy tontu mu ne kon nag dee leen jox seeni àq ñu ne ko luy àqi rab mu ne mooy bu la yàlla mayee mu bokk ci yi may nga jëfandikoo ko na ko yar ba mu baax nga rey ko doo koy jëfandikoo ren di la wax te nga may dagg boppam ba sànni ko ca mbalit ma loolu rafetut loolu rafetut ci kaw loolu nag ay rab kenn du leen faagaagal jóg rek ne tey damay faagaagal rab yi te am na ñoo xamante ni kat ña ngi koy def te yëguñ ko man autoroute bii dama fay jaar gis ni ñu def ñu taal ak daay bu gudda gudda mu làng ak tali bi ñuul kukk ma ne cey kii lim rey lim rey ci rab yu doon daagu ci suuf yi yor seen ak njaboot doon wuti dund kenn xamul nu toll te moo ne bu wut ngi ko def ba noppi dem taal ay climatiseur di nelaw ànd ca xel mu dal te xamul ne maanaam aw aw middeef yu bokk ci ay xeet la faagaagal loolu moo tax taal ak daay nii rek musiba mu rëy la moo tax nag yonente bi aleyhi am na benn ci yonente yee bu nekkoon ci ab tukki ba yegg ci ron ak genn garab mu wàcc fay noppalu ànd ak ñam àndal wenn xorandoom màtt ko fa moom yónnente boobee yónnente boobee digle ñu génne xorom woowee ba jàpp ko rey ko yéemu fa itam mu ne nañ gas kër xorandoom yi lakk ko bañ def ko lépp borom bi tabaaraka wa di di seetaan bàyyi ko ba mu def loolu lépp te ab yónnente la mu ne ko fa halla namlatun waahida waaw xanaa xanaa du wenn xorom doom wula mat moo tax nga faagaagal aw xeet wu toll nii yeddaa nga juréy la nag mooy jëru mooy jëru ko woon wenn xorondoom wula mat jërut nga faagaagal mboolem kër dëkkëb xorondoom moo tax nag ñii wut seeni pomp nag foofu laa jëm si de ñii seeni pomp rek ne damay rey ay yoo fërërërërërër ba mat nga dem tëdd cey la nga rey ci mbindéef cey la nga rey ci mbindéef bu la yàlla ne woon ku ci nekk delloo ko ak ruuxam foo jëm man xam naa man woy naa xabtum fa aqibu bi misli maa uqibtum bii boo dee mbugal na mbugal tolloog lañ la defoon bu fekkent ni mënoo jégle na nga seet lu tolloog lañ la defoon kii nag dana ñëw ne wiiw nga ne xeet waa ngi may bëgg a rey naa rey ñëpp waxuma bu ñu rey yooyu de waaye dama ne fu ñu war a taxaw la xool ne xool xool lu rëy loolu ah lu lu lu doy war la moo tax nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ca la Saddaad aw Aws waxoon ne yoonante bi nee na woon yàlla bind na rafetal ci lu ne ba bu dee ngeen rey aw bàyyi ma na ngeen di rafetal na ngeen koy reye su ngeen dee rendi na ngeen di rafetal na ngeen na di rendee te ku ci nekk nay daasal ak ñawkaam te nay noppal la muy rendi te nee na boo dee rey ay nag wala ay xar bul fopp mennam xar di ko rey ca kanam moroomi xaram bul fay fob aw nag di ko rey ci kanam moroomi nagam bul fob aw gëléem di ko rey ci kanam moroomi gëléemam ay waay waay tey ngaa fob xar mi wala nag bi wala gëléem gi wala xar mi wala bëy bi làq ko ba rey ko ba moroom yi du ko nga doon jël siwaat beneen yonent bi daf koy tere ndaxte maanaam rafetul jëkkut tiitaanga ja ngay def ca sa mbokk mbindeef yooyee te nag rey lañ la waxoon rend lañ la waxoon waaye waxoon nga tiital leen te nit ñaa ngi koy def yàkkamti rek ceet gee xew ga xewleeg dëj bi nag yaa ngi ñett la tépp tépp tépp ñépp yi xoolandoo ku ko def nag mooy nga ndigalal yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax yonente bi ba mu fekkee ku tëral am xaram ngir rendi ko da koo tëral ba ñàdd ko téyal ko mu ne may leen ma ma daa si paaka bi jàppal leen ma bañ jàpp ba tëral xar mi ba ren des ca mu ne may leen ma ma daa paaka bi yonent bi ne ko danga nga koo bëgg a rey ñaari ay raya danga nga koo bëgg a deyal ay dee yu bare ne ko halla ahdatta safrataka qabla an tarjaaha li la waroon mooy ban ko daataa ñàdd ci nga waroon dem daa si sa paaka lii ba mu ñaw nga doo koy indi ndax rey gi gaaw kon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba ci rend sax nee na na ngay daas li ngay rendee ba mu ñëw ngir rend bi gën a gaaw ngir nga gaaw a noppal li ngay rend waaye ñëw naan fuux fuux fuux daas daas ki ci kanam yëpp bañ bañ bañ gis la nga doog ni tëral leen rafetu juróom-ñaareel ba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daf doon tere ñu jël rab yi di leen def ay fowukaay wala ak ndiirukaay yow daal da dangay jàng jam am muusa nga fee nañ ko yeew fële ba xam maag yow ko ci mën a jam ba kenn ci ñu ñaar ne ko till mu dee rek ngeen sarxo leen yow mën ngaa jam def nga musiba mu rëy kala ko digal def na musiba ne ka koy seetaan def na musiba mu rëy yonent bi dafay tere ngay wut aw rab teg ko fële di ko def fooy jànge ndiir ak jab moo tax nag di boole ay nag ñuy bëkkante ba dee wala benn bu nekk ay béjjénam ndam bu rafetut donte ne tubaab yaa ngi koy def rafetut boole ay ganaar ñuy xeex ba kenn ka jam kenn ko mu dee ngay reetaan ak a rafetu yonent bi alayhi salaatu salaam daf koy tere moo tax nag wut aw rab di ko def ak jamukaay yonent bi daf koy tere ndax nee na lépp loo xam ne dafa am ak ruux dañuy tere nga jël ko di cay jànge njam laa tattaxisoo say an fiihi ruuhu garadan rawaahu muslim kon yooyu lenn la ci nga xamante ni dañ ko doon tudd ngir xam la ne ku bëgg a jaare la rab fa ko lislaam sante woon mënoo ñàkk bàyyi xel yooyu ngir xam goo war a xam ne sa mbokk mbindeef la yoo xam ne yàlla dafa tàggat lenn ci ñoom ngir ñu ànd ak yow di la yombalal dund gi kon nag ñun ñëpp dañoo war a ànd ngir aar ko yiir ko ngir sax benn ci yëf yi di ñëw war nañoo sonn ci rab yi ngir benn ci yëf yii di ñëw ba ca njëkk mooy war nañoo sonn ci rab yi ngir ne sax xanaa bu tudd dara itam dañ leen di rey di ci dund bu doon loolu bu doon loolu rekk la rekk jar na ñu war a sonn ci ñoom yërëm leen yittewoo leen <coughs> ba noppi itam dañ leen di ratt di naan ci seeni soow yi dañuy dagg seen karaw yi ak seen der yi di ci def ay yére di ci defar ay saak di ci defar ay tappi di leen war di ci tukki xanaa bu toon dara sax ñu war leen war maal ngir yooyu bu ñaareel ba war nañoo sonn ci rab yi ngir ne sax jaamu yàlla gi ñu yàlla cëppeel ci kaw suuf te cëppeeluñu ci kaw suuf lu dul ngir ñu jaamu ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa yaabudun war nañoo warmaal rab yi ngir sax ne rab yi danañu dimbale ci lenn ci ñu matal sunu jaamu yàlla ndax boo demee màkka di aji wala def li ñuy wax hadiyu am xar wala gëléem wala nag moom lañ lay digal nga jënd ko rey ko ngir sa jaamu yàlla gën a mat war nañ leen war maal ngir loolu xanaa wala suñ bëggee tabaski ngir mën a taxawee jaamu yàlla googu itam ñu ne la jëndal am xar ñu war leen war maal ngir loolu sax wala suñ bëggee ngénte wala suñ bëggee def ay dëj wala ñu bëggee def yeneen événement yi yooyu benn boo ci jëloon rek mu doy ñu sëkk ngir warmaal rab yi ñetteel ba war nañoo warmaal rab yi ngir bu ñu doon xool rôle bu mag bi nga xamante ni rab yi def nañ ko ci jihaad ci yoonu yàlla xare yi gënoon tar ci lislaam xare yi gënoon a tar ci lislaam muy xaswatu badrinil kubra fas yi ak gëléem yi joué nañ ca rôle bu rëy te moo ne day xare boobee day andi na ndam lu rëy ci lislaam bu nit ñi nga xamante ni ay jullit lañ di ndamoo xare Badar war nañuy fàttaliku fas ya jullit ya waroon ak mbaam ya ak gëléem ya ndax seen taxawaay bu rëy ñu war a warmal nag fas yii ak gëléem yi ak nag yii ak mbaam yii ngeen mën nañoo nekk sëti ñooña ndax yow boo gisoon fii koo xam ne dañu leen sëtëb saxaabi yu sàngam la danga koy warmal ngeen leen askonoo ca kooka ku la wax ne maanaam ñooñu amuñu fii sët fas yooyee gëléem yooyee ak mbaam yooyee war nañ fee ami sët te bëgguñ ko dóor seeni sët nag ak ku leen di mbugal wala nga leen di beccingal yeggoon nañ ci ñu ñu ñu ñu jox fas cër ba bu ñuy dajale koom ma dañ naan nañ jox fas wi ñaari cër jox ko ko war benn cër kon kooku kon fas moom ak yooyu ñu daan war di jihaat ci yoonu yàlla am na ñu cër de rab yi yegg nañ ci sunu borom di giñ ci ñoom jàngal laaye ji njëkk ci suratul aadiyaat ba ci juróomi laaya ba wal aadiyaati dabaxa sunu borom nee na maa ngi giñ ca fas yay doon jaab ba seen tànk ya di di dóorante ngir xel yu metti ca toolu xare ba maa ngi giñ ca yooyee fas fal muuriyaati xaddaxa maa ngi giñ ca fas ya nga xamante nii dañuy daw ci kekk li seen wey yi ni muy dale ci kekk yi ak tàngoor yi ba mel ne ay ferñeent da cay génn ngir vitesse maa ngi giñ ca fas yooyu fal mughayraati subha maa ngi giñ ca fas ya nga xamante ni suba cooy la leen julli di di war fu ñu jëm di jihaati yoon yàlla fa bi bihi naqaa ñu leen di war di leen rëpputal ba ñuy jeqi pënd bi fa wasat na bihi jamaa ñuy dem ba fas yooyee ànd ak ña ko war ne cundum ca digg géew ba ngir xeex ak noonu yàlla ya yooyu ay fas lañu woon di wal aadiyaati dabha fal muuriyaati qadha fal mughiraati subha fa asarna bihi naqa fa wasatna bihi jama waroon nañ leen a warmaal ngir loolu de waaye waroon leen warmaal ngir ne gëléem ak naag ak fas ak mbaam ak barkel nag yonente ya daa lañ leen war nit ñu baax ñi daa lañ leen war te yonente ya ak ñu baax ñi dañ leen a war maa loolu jox leen ab cër daan leen tànnal tur yu rafet itam xanaa xamuñ ne fas wa sëriñ bi radiyallahu anhu waroon ba muy xëyee ca mbàkke baari ci tukkeem boobee sëriñ basiiru nee na awnallaahi la ko sëriñ bi tudde woon mooy ndimbalal yàlla aw fas la turam awnullah ndimbalal yàlla ah fonkon na ko de ndax liggéeyal na sëriñ bi ci wax yi te dëgg la itam da liggéeyal ndax ci moom la waroon bi muy dem ci tukki bi fasam bii ci ngelamu aw fas la de la tax ñu wutal ko fa pàkk banaan maa ngi dem ngelamu am nit ñu fay joxe sax àddiya waaw man ba ma nekkee ca daara yàgg na maa njëkkante juróom-ñaar dërëm ya fa daane suñ masaa jub fas aw xel la ñuy def ndax am na ko daa jox àddiyee joo xamante ni ñun ñoo ko daa jëli kon am nañ ñoom fas yi te ñoo représenté rab yi nag ak mbaam yeeg xar yeeg gëléem yi ñu représenté seen mbokki rab yi nag am nañu wàcc wàccuwaay ndax nit ñu baax ñi daan leen war joxoon leen cër kon nag nañ leen bàyyi xel ci di waxtaane seeni mbir ngir yee ci nit ñi ci ñu xam ne ñu joxe ñu jara jox cir lañ ñu jara yittewoo lañ sunu borom itam bindu leen rekk ngirug neen am nañ lu leen tax a jóg ba ci rab yi yi nga xam ne doomu aadama dafa yaakaar ne màtte la ñuy liggéeyee du seen liggéey ngànnaay la ci ñoom rab yi nga xam ne sax doomu aadama nee na dañuy màtte du seen liggéey borom bi bindu leen ngir màtte seen ngànnaay la dañuy ragal nga tooñ leen rek ñu ne la yaa ngi may jege walla nga jaar seen wet ñu ne moytu ma ndax suñu amatoon seen gànnaay la ku jóg faagaagal leen kon nañ taxawal ay mbootaay ngir yée nit ñi bañ gën a mën a am xam àqi bàyyi ma yéeg rab yi ba man leen a bàyyi xel gën leen a toppatoo ni ñu war a jëlee mbootaay yooyu itam ngir aar rab yi ni lañu war a jël nag ay taxawaay yu mat sëkk nag jëmale ko ci ñiy mbugal rab yi ñiy mbugal rab yi ca dëgg-dëgg daal kuy dóor aw rab sëf ko di ko dóor bam daanu dee waruñ laa bàyyi noonu war nañ laa teg ay daan ngir nga xam ne lii nga def yellut rafetu loolu nag mag ak ndaw a ci tañ leen bàyyi bañ leen a bàyyi xale yu ndaw yi itam ñuy dawal sareet yi lu leen neex def ci fu leen neex dóor waxtu lu ñu leen neex itam ñu ràng leen xàmmee wuñ bëccëg xàmmee wuñ xaaju guddi loolu itam rafetu nañ xam ne kon daal ay mbindeef lañ yoo xam ne xalaqahunna alxaaliqul qadir yàlla mu am kàttan ma ma bind doomu aadama moo leen bind kon nañ leen warmaal ngir loolu waaye nañ taxawal tam li ñu tudd ay baytariyaat mooy ñoo xamante ni seen xam dafay macc ci faj rab su amee laago wala mu wopp ñooñu itam ñu dooleel leen te ku ci am rab wu làpp wala mu wopp nga nangu leen faa yóbbu jëndal leen ordonnance ñu faj leen bañ wér nga doog leen di dugalaat ci liggéey bi ànd ak di bàyyi xel tam yërmaande joojee ñu doon wax kon mbokk yi lii mooy tomb yi nga xam ne woon tan neeñ woon nañ ko ubbee waxtaan bi ndax bunt bi yaatu na yaatu goo xamante itam liñ ci war a mën a wax bari na ñi ñu ko gën a xam itam bari na waaye loolu dañ ko ñu doon ubbi ngir bëgg nit ñi di ci bàyyi xel ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu dimbale ñu itam te jéggal ñu li weesu ci ay rëcc rëcc yi ñu def suñu digganteeg rab yi te dimbale ñu itam ba ni mu bëgg yonentam bëgg ko nit ñu baax ñëpp bëgg ko ñu koy jëflanteeg rab yi itam ñu defe ko noona yàlla mën na ko yàlla nañu ci dimbale wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf Cheikh Mouhamadul Fadal waxtaan wi am na solo lool ci ni nga ko indee jàpp naa ni itam ñi nga xam ne ñoo doon topp waxtaan wi jariñu nañ ci njariñ loo xam ne am na tàmbali waaye amut fu mu yam ndax ni ma ko waxe woon ca tàmbali ba euh, xayewaan muy rab dafa doon loo xam ne lu am solo la ci dunduk doomu aadama ni nga ko waxee ci tëjtali ndax bu dul woon ak jariñoo giñ leen di jariñoo ci wàllu liggéey rek jariñoo giñ leen di jariñoo ci wàllu jëfandikoo war naa tax ñu fonk leen kon waxtaan wi ni nga ko tëralee am na solo lool ñëw nga bu baax a baax ci naka lañ mën a yërëmee bàyyi ma ak euh, naka euh, yan njariñ moom lañ moom lañu am yan yan njariñ moo am ci yërëm doomu aadama ak naka lañ leen di yërëme ñoom bàyyi ma yi naka lañ leen di yërëmee ñoom bàyyi yi kon waxtaan wi waxtaan la woo xamante ne bii buñ ci nekkee di ci njàmbaas dara dañ ci guddal xanaa di wax ne rek aw xeet lañ woo xam ne comme xeetu doomu aadama ni mu amee noonu lañ doone aw xeet ñoom bàyyi ma yi kon war nañ leen fonk bu baax a baax liy wane loolu rek mooy alquranul karim suñ borom subhanahu wa taala tudd na seeni tur lu baree bari ci alquranul karim te dañuy wax ne tuddug dara di ko baamu ci alquran wala di ko baamu ci ay barab wane na njariñ loolu nga xam ne moom la loola am kon bàyyi ma doon na loo xamante ne bi lu am njariñ la ginnaaw nag ñun aw xeet lañ ñoom aw xeet lañ war nañoo sàmm li dox suñu diggante ak ñoom kon ni ñu war a jëflante ak ñoom mm, leer na nañ ci biir waxtaan wi war nañ leen di itaam muy di leen e, jox lekk war na itam ñu leen di bañ a sonal bu ñu leen di jëfandikoo itam ñu jëfandikoo leen kem seen kàttan bañ a dolli ca kàttan googu dara comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee dañ leen di sëf bu baax a baax a baax a baax ba noppi duñ leen noppal kon loolu itam àq la joo xamante ni bi doomu aadama yi ñu ngi koy yoreel seen moroomi moroomi mbindeef moroomi mbindeef yooyu nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala da leen bind ngir am mission bu mu leen di doxloo ñoom it comme ni nga xamante ni bi noonu lay lay doxloo am mission waaye itam waruñu leen di rëbb di leen uh, ray te doyewuñu leen dara di waruñu leen rey te doyewuñu leen dara kon doye gi dara dafa mel ne ab sart la ci ñu di leen di ñu di leen rëbb kon bu ñu leen dee rëbb dañ leen a war a rëbb rëbb goo xamante ne bi dañ ci jëfandiku kem nañ leen war a jëfandikoo waaye waruñ koo waruñ ko dépassé waruñ koo wees waaye itam waruñoo rëbb ngir fox wala ngir caaxaan wala yu demee noonu wala ngir dem ci ab àll ak naataange wala yu demee noonu sëñ bi dikk bu baax baax ci niñ leen war bu ñu leen dee rend itam itam ñu leen war a rendee te loolu mooy lu muy lu am solo muy lu am solo euh, wax na ko ci biir waxtaan wi muy ne bu ñu leen di rendi waruñu leen a teg teg benn tegaat beneen dajale leen benn bu nekk nga rendi dem ca becales li nga war a def mooy indi benn defar ko ba pare yóbbu ko indiwaat beneen defar ko wala boo boo mënul loolu itam xay na barab ba xat na nga defe ko ci barab yi wuute loolu mooy li nga xam ne moo war a am waaye nit ñi nag léegi ni ñuy def ci tabaski ci misaal dañuy teg genn kër goo xamante ne bi ñu bari ñoo fay e, lottal ay xar day mel ne ñoom ñëpp dañuy rangale seeni xar waaw kenn kiy lottal rek mooy lottal bii dem lottal bee dem lottal bee ca des te loolu itam doon loo xamante ne bi Eh, lu doy waar la eh, sàmmut àq ji nga xamante ne bi moom lañ moom lañ leen war a war a war a war a jox eh, loolu itam doon lu am solo waaye feeñ na ci biir waxtaan wi itam ne ñoom bàyyi ma yi aw xeet lañ woo xam ne suñ borom subhaanahu wa taala da leen na da leen a fonk kenn wóoru leen a lor waroo leen a lor ci làmmiñ waaye itam waroo leen a lor ci loxo indi na ci ay misaal yu bari ci lor gi ñu leen di lor ci làmmiñ waaye indi na ci ay misaal yu bari itam ci lor gi ñu leen di lor ci loxo yooyu itam duñ ca dugg xam naa ngir xataayu waxtu wi kon daal euh, waxtaan wi doon na waxtaan wu am solo woo xam ne nit ñi war nañ koo bàyyi xel rawatina ci mujj gi euh, ni mu waxee ne noonu lañu war a taxawoo bàyyi ma yi rawatina ci mujj gi ni mu waxee ne noonu lañ taxawoo war a taxawoo bàyyi ma yi ci di leen faj ci def ay association yoo xamante ne bi ñoo leen di taxaw euh, di képp koo xamante ne bi mi ngi leen di néewal doole nga taxaw ci ba nga xam ne euh, néewal googu ñu leen di néewal doole dana dana saafaro kon Serigne Fallou ñu ngi lay sant bu baax dina ñaanal suñ borom subhaanahu wa taala gën a yokk sa xam-xam gën laa wéral kon ñuy xamle ne waxtaan wi ñi ngi ko doon topp ci As-Samadiyya moom bokk na ci ñi nga xam ne dañ koy rediffuser di ko tegaat waaye Lamp Fall itam euh, moom it da koy teg waaye site internet bu ñuy wax timis moom bokk na ci ñi nga xam ne dañ koy dañ koy teg waaye itam euh, télé jumaa ji mi nga xam ne mooy MK TV moom it euh, mi ngi koy diffuser saa su nekk ak mbooleem ñi nga xam ne dañ koy tegaat ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm kon suba ak jàmm am na thème bu fi war a waxtaane muy al isti'daadu lirraxiil ki ñu ko war a defal mooy Serigne Mbacke dem Euh, képp koo xam ne itam am nga laaj boo xamante ne bii laajub diine la boo war a laaj euh, ci fattuwaay yi ñu fiy def mën nga ko envoyé ci numéro bi muy 78 689 28 28 78 689 28 28 kon ñoo ngi sant ñëpp di wàccee foofu suñ kàddu di leen wax wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin